asalaamaaleykum chers internautes Sénégal yéen ñi nga xamante ne yéen ñu taamu di ñu suivre suñu plateforme yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal te leen ñaanal kenn ak jàmm li nga xamante ne moom lañ ñu digoon ca campagne électorale ya maanaam Sonko ak Jomaay tegguñu seen tànk yàlla bu ñu ko teggi ñu ñëw public nag di ñu ci xamal benn ca digle yooyu xamante ne moom la ñu digle woon ca campagne ba di ñu titre le projet de transformation systémique pour relever l'économie nationale maanaam di ñu xamal ne li nga xamante ne moom mooy PSE te Macky Sall bàyyi ko fi te ñu ko doon wooyee plan Sénégal émergent dafa mujj mujjee nekk plan Sénégal endettement loolu nag indi li nga xamante ne moom mooy jafe-jafe bu yaatu ci ni nga xamante ne noonu la économie waroon a tëddee saafara bi nga xamante ne moom lañ ci xalaat nag mooy tàggat xale yi ci mi tàggat xale ci li nga xamante ne mooy càmm gi tàggat xale yi tamit ci li nga xamante ne moom mooy industrie maanaam tàggat leen ci liggéey yi nga xamante ne dina tax économie Sénégal gën a relevé wu gën a ñoŋ ci économie boobu la des ba léegi ki nga xamante ne moom mooy l'observateur di ñu ci ñëwal lutte contre la vie Ousmane Sonko di titre le ratio de sacrifice maanaam kii di Ousmane Sonko ci jaaxle-jaaxle yi lu métti la nekk maanaam nu muy war def ba nga xamante ne dina soulager sénégalais yi ci jafe-jafe yi ñu nekk ñu des ba léegi ci l'observateur mu ñu dikkal ci la vie carcérale de Diomaye bi nga xamante ne moom mooy tey le président de la république de tous les sénégalais di ñu xamal ne ba muy nekk fële ndala ca prison ba bu daan xëdd beñe la daan xëddee wala mbiskit nekk ku gëm yàlla nag foo ko fekk dafay kaf dafay ree maanaam lépp li nga xamante ne moom la doon dund sa prison boobu dafa nangu woon ne rek dogalu yàlla la ba tey ji yàlla jëlee ko ca prison ba yóbbu ko ca pale ba ba léegi ci jaaxle boobu nga xamante ne Ousmane moom la am pour soulager li nga xamante ne moom mooy souffrance su sénégalais yi source a di ñu ci li nga xamante ne moom mooy building administratif boobee nga xamante ne def nañ ci ay milliards et milliards mënul fexe ba sotti Ousmane bu demee xool la fa nekk ba xam dina mën a jël ministère yi nga xamante ne dañ leen a logé da nguur gi di leen jël en charge bu leen fa yóbboo dina tax lii nga xamante ne moom mooy nguuru Bassirou Diomaye Faye ñu mën a rationaliser lii di les finance publique ñu des ba léegi ci crise financière yooyu tribune di ñu ci ñëwal Diomaye promet le meilleur mais son ministre de finance prédit le pire Diomaye yéene bi mu am ci saafara jafe-jafe askan bi ak li nga xamante ne moom mooy dëgg gi mooy réalité bi nga xamante ne moo fi am du benn ñu des ba léegi ci tribune mu ñuy xamal ne kii nga xamante ne moom mooy gouvernement Sénégal quinze mille milliards la am ci bor di ci samp laaj ndax ki nga xamante ne mooy Diomaye ak Sonko mën nañoo fay boo bi la bor kii di l'économiste Maysa Babou di ñu indil ay pour ñu am solution ci bor boobu nga xamante ne amee nañ ko muy quinze mille milliards yi ñu ñëw ci prix mburu bi nga xamante ne dañoo waxoon ne dañ koo wàññi ne kilo bi fii ak le dix mais kilo bi day jar cent vingt cinq au lieu de cent soixante ki nga xamante ne moom mooy la président de la fédération des boulangers di ko weddi moom nee na yëgu ko même bu amee tamit yëgu nga xam naa ne gouvernement bi warul jël décision bu toll nee te waxtaanu teeg ñi nga xamante ne ñoom ñooy liggéey ci wàll woowu en tout cas lu ci mën a am nañ fexee dëggal loolu buñ ko dëggalul séeréer yi dinañ am déception démb koo ci gis ci estatew ma wane kilo mburu ba baare 175 bi ba pare di fësal li nga xamante moom mooy 125 ñu ñëw ci fekk fa ki nga xamante ne mooy Moustapha Dièck nekk ministre de la formation en même temps porte-parole du gouvernement dañu xamal ne notre priorité c'est de des structures économiques et solides di joxe li nga xamante mooy exemple ci Maroc ak Tunisie wala sax buñ leen mënee raw loolu yëpp nag balaa moo am foog lépp di jaar dans les règles de l'art maanaam constitution bi koo war a changer ndax constitution bi nga xamante ne daf fee nekkoon dafa bari ay yàqu-yàqu kon rupture bi nga xamante ne moom la ñuy woote suñ ko nammee lii di constitution bi dañ ko war a tëggaat ba nga xamante ne kenn du ci am sañ-sañ ci def ci lu la neex sinon bukki bi maatoon Macky Sall mën na leen a maraat ci constitution bi ñu ñëw ci lii quotidien renforcement des pouvoirs du premier ministre pari risqué pour le président Diomaye Babacar Dione ñëw di ñu xamal ne lii nga xamante ne moom la Diomaye bëgg maanaam yokk lii di pouvoir Ousmane Sonko ndax du ko indil ay jafe-jafe ndax kat moom daa démissionné ci li nga xamante ne mooy parti bi kon nag kii di Ousmane bu ko ëppee pouvoir ca parti ba ëpp ko pouvoir ci lii ci gouvernement bi ndax du ko indil moom Basiru ay jafe-jafe ci jafe-jafe yooyu la ñëwee ci yoor yoor yoor di ñu fësalal li nga xamante ne moom mooy nataalu bu Mame Mbaye Niang di ñu éniméral maanaam dañu listel li nga xamante ne mooy njombe yi ñu koy tuumaal ba mu nekkee fii ci ministère de la jeunesse ak coowal Prodac bi yoor yoor di la cour des comptes ne peut blanchir Mame Mbaye Niang ñu ñëw ci le mandat Faye nekk le président de la république des sénégalais sortem bu njëkk maanaam génnam bu njëkk bi nga xamante ne def na ko mooy seet kii di naataangoom nekk dëkkandoom ca Mauritanie maanaam ca Nouakchott ñenn ñi di samp laaj ndax dafa am lu ko fa yóbbu wala boog dafa nekk seetum nemmeeku ñu ñëw ci direct news muy samp laaj pourquoi le PDS n'a pas siégé dans le gouvernement de Sonko 1 ñenn ñi di laaj ndax jafe-jafe yi ñu doon am ca assemblée moo leen dugal leen ci gouvernement bi Karim Wade proposé ko kii di Saliou Dieng fi Diallo Mayoro Faye Abdoulaye Racine Kane waaye Sonko dafa gis ne ñooñu mu ko proposé ak profil yi nga xamante ne Sonko moom la soxla méngoowuñu xam naa ne loolu mooy wane seen ñàkk a nekk si nguur gi ñu ñëw ci vox populi mu ñuy dikkal ci coowum passeport diplomatique ba di ñu xamal ne kii di Macky Sall balaa mu doon dem maanaam le 28 mars dafa def benn décret boo xamante ne képp kuy ancien ministre wala secrétaire d'état wala député wala officier wala sax ambassadeur ak ay seeni jabar ak seeni ay doom wala say ni ay jëkkër dangay garder privilège bi nga xamante ne moom nga amoon ba fi nguuru Macky Sall nekkee waaye kii di Diomaye da koo dindi ndax député bii di Adji Mbergane Kanouté ba mu demee ca aéroport dañ koo xamal ne lii di passeport diplomatique moom amatul droit utiliser ko buy dem voyage mu di ko ñaawlo di ko naqarlu waaye nag heureusement ba nga xamante ne ba léegi mu ngi nekk député tax na bàyyi ko passeport am boobu mu voyager

technicien jërëjëf ñu yendoog jàmm